autopsie bi si génn bu àdduna Hiba Thiam euh, la mu révélé rek moo di intoxication bu sabab hémorragie moo ko faat appartement bu Hiba ñàkkee bakkanam nag nga xam ne ab soirée privée la fa doomu boss yi doon amal euh, Dame Amar euh, di doomu dem si yàlla met Amar waaye tamit goro Youssou Ndour gannaaw ba muy dencee doomam moo ko logé woon rek boobulee appartement dosel ko soxnaam samuy bëgganteel si sutura rek di tubaab boobee gannaaw ba mu woon France coro Dame Amar boobu nag di ab tunisienne d'origine française di wuyoo si turub Alia daal di nañu koy rek teg loxo moom it bu ñu sukkandikoo eh, si journal bi di Tribune mu bokk rek si six suspect ya ñu arrêté samedi ngir besoin wu enquête bi bu ñu sukkandikoo si la Tribune ba tey rek Ama Niane teggul woon rek tànkam si boobule appartement eh, ba tey bu ñu sukkandikoo si Libération ñoom ñu ñi dañu leen scorté woon rek gannaaw ba ñu fayee trente mille francs loolee tax sax euh, ba ñu teg loxo tamit agent ba leen escorté woon ñoom gos yooyee euh, lu gën a surprenante nag si bile mbir moo di rek dossier bi wër na ñetti brigade si diiru ñaari fan euh, képp rek brigade nag bu ngor bu jëloon en charge dossier bi moo si jiitu laata rek brigade de Thionk laata tamit muy yegg ca section de recherche de la gendarmerie de Colobane loolee tax rek ba ñuy njort ne bu yàggul dara rek bile mbir dina feeñalaat ay secret yu bees ci fàttali ñoom ñoo ñee ñu interpellé yëpp rek seen témoignage yi daa wuute lool donte sax amoon na kenn ku xamle ni drogue baa ngi doon circuler waaye waxul woon rek benn yoon ah, ku ko fa indi rek. ba tey ci bile mbir drogue bi nag ñu ngi ko doon consommé bu baax a baax ci boobule soirée privée bu ñu doon amal ah, ca Almadi nga xam ne sax ah, ci la Hiba Thiam ñàkkee bakkanam bu ñu Sylla di tubaab boobee Dame Amar di bëgganteel daal di nay xamle ni rek euh, ñii di enquêteurs yi nekkee ca brigade de recherche ni leen rek euh, proposé woon nañu ko fa sax poudre blanche boobee di drogue bi laata mu koy demandé si noonee nag la ko enquêteurs yi laajee rek ana kan moo ko ko proposé woon waaye moom moomee Aliya daa dal di rek noppi laata muy wax képp ni rek xiba mi ngi si doon jël euh, si boobule mbir ba weesoo nag enquêteur brigade de agression indi ca Garden Park eh, bu xiba ñàkkee bakkanam waaye itam eh, si kër Amadou ñaan di xaritu Dame Amar mi ñu placé jamono ji en garde à moom nag Amadou Niane dëggul woon tànkam si appartement ba eh, dañu ko rek tee si lu ñu wax ni da doon complot ak Dame Amar ngir rek dimbale ko ba mu mën a daw autopsie bi si génn bu àdduna Hiba Thiam euh, la mu révélé rek moo di intoxication bu sabab hémorragie moo ko faat appartement bu Hiba ñàkkee bakkanam nag nga xam ne ab soirée privée la fa doomu boss yi doon amal euh, Dame Amar euh, di doomu ndem si yàlla met Amar waaye yi tamit goro Youssou Ndour gannaaw ba muy dëncee doomam moo ko logé woon rek boobulee appartement dosel ko soxnaam samuy bëggantel si sutura rek di tubaab boobee gannaaw ba ko woon France coro Dame Amar boobu nag di ab tunisienne d'origine française di wuyoo si turub Alia daal di nañu koy rek teg loxo moom it bu ñu sukkandikoo eh, si journal bi di Tribune mu bokk rek si si suspect ya ñu arrêté samedi ngir besoin wu enquête bi bu ñu sukkandikoo si la Tribune ba tey rek Ama Niane teggul woon rek tànkam si boobule appartement ba tey bu sukkandikoo si Libération ñoom ñu ñi dañu leen scorté woon rek Euh, gannaaw ba ñu fayee trente mille francs loolee tax sax euh, ba ñu teg loxo tamit agent ba leen escorté woon ñoom gos yooyee euh, lu gën a surprenante nag si bile mbir moo di rek dossier bi wër na ñetti brigade si diiru ñaari fan képp rek brigade nag bu ngor bu jëloon en charge dossier bi moo si jiitu laata rek brigade de conk laata tamit mu yegg ca section de recherche de la gendarmerie de Colobane loolee tax rek ba ñuy njort ne bu yàggul dara rek bile mbir dina feeñalaat ay secret yu bees ci fàttali ñoom ñoo ñee ñu interpellé yëpp rek seen témoignage yi daa wuute lool donte sax amoon na kenn ku xamle ni drogue baa ngi doon circuler waaye waxul woon rek benn yoon ku ko fa indi rek. ba tey si bile mbir drogue bi nag ñu ngi ko doon consommé bu baax a baax si boobule soirée privée bu ñu doon amal euh, ca almadi nga xam ne sax si euh, la xiba caam ñàkkee bakkanam bu ñu sukkandikoo si libération aliya di tubaab boobee daam amar di bëgganteel daal dinay xam le ni rek euh, ñii di enquêteurs yi nekkee ca brigade de recherche ni leen rek proposé woon nañu ko fa sax poudre blanche boobee di drogue bi laata mu koy demandé si noonee nag la ko enquêteurs yi laajee rek woon waaye moom moomee Aliya daa dal di rek noppi laata muy wax képp ni rek xiba mi ngi si doon jël euh, si boobule mbir ba loolu weesoo nag enquêteur brigade de recherche yi amal nañu ay perquisition indi ca Garden Park euh, bu xiba ñàkkee bakkanam waaye itam euh, si kër Amadou Niane di xaritu Dame Amar mi ñu placé jamono ji en garde à vue moom nag Amadou Niane dëggul woon tànkam si appartement ba dañu ko rek tee si lu ñu wax ni da doon complot ak Dame Amar ngir rek dimbale ko ba mu mun a daw. autopsie bi si génn bu àdduna Hiba Thiam euh, la mu révélé rek moo di intoxication bu sabab hémorragie moo ko faat appartement bu Hiba ñàkkee bakkanam nag nga xam ne ab soirée privée la fa doomu boo si doon amal Dame Amar di doomu dem si yàlla met Amar waaye ji tamit goro Youssou Ndour gannaaw ba muy dencee doomam moo ko logé woon rek boobule appartement dosir ko soxnaam sam yu bëggantel si euh, sutura rek di tubaab boobee gannaaw ba mu jógee ko woon France coro Dame Amar boobu nag di ab tunisienne d'origine française di wuyoo si turub Alia daal nañu koy rek teg loxo moom it bu ñu sukkandikoo eh, si journal bi di Tribune mu bokk rek si six suspect ya ñu arrêté samedi ngir besoin bi bu ñu sukkandikoo si la Tribune ba tey rek Ama Niane teggul woon rek tànkam si boobule appartement ba tey bu sukkandikoo si Libération ñoom ñu ñi dañu leen scorté woon rek gannaaw ba ñu fayee trente mille francs loolee tax sax ba ñu teg loxo tamit agent ba leen escorté woon ñoom gos yooyee lu gën a surprenante nag si bile mbir moo di rek dossier bi war na ñetti brigade si diiru ñaari fan képp rek brigade nag bu ngor bu jëloon en charge dossier bi moo si jiitu laata rek brigade de conk laata tamit mu yegg ca section de recherche de la gendarmerie de Colobane loolee tax rek ba ñuy njort bu yàggula dara rek bi la mbir dina feeñalaat ay secret yu bees si fàttali ñoom ñoo ñee ñu interpellé yëpp rek seen témoignage yi daa wuute lool donte sax amoon na kenn ku xam le ni drogue baa ngi doon circuler waaye waxul woon rek benn yoon ku ko fa indi rek. ba tey si bile mbir drogue bi nag ñu ngi ko doon consommé bu baax a baax si boobu les soirées privées bu ñu doon amal euh, ca almadi nga xam ne sax si euh, la xiba caam ñàkkee bakkanam bu ñu sukkandikoo si libération aliya di tubaab boobee daam amar di bëgganteel daal dinay xamle ni rek euh, ñii di enquêteurs yi nekkee ca brigade de recherche ne leen rek proposer woon nañu ko fa sax poudre blanche boobee di drogue bi laata mu koy demande si noonee nag la ko enquêteurs yi laajee rek géwël waaye moom moomee Aliya daa dal di rek noppi laata mi wax képp ni rek xiba mi ngi si doon jël euh, si boobule mbir ba loolu weesoo nag enquêteur brigade de recherche yi amal nañu ay perquisition indi ca Garden Park euh, bu xiba ñàkkee bakkanam waaye itam euh, si kër Amadou Niane di xaritu Dame Amar mi ñu placé jamono ji en garde à moom nag Amadou Niane dëggul woon tànkam si appartement ba dañu ko rek téye si lu wax ni da doon complot ak Dame Amar ngir rek dimbale ko eh, ba mu mun a daw.